أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ginnaaw loolu ñaaw biñ sante yàlla subhaanahu wa taala eh, julli ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu dañ leen di nuyu nuyoog lislaam leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw di leen wax di feeneel suñu kontaante ci bés bi waaw ñu leen di nuyu nuyoog lislaam den wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, di feeñal suñu kontaante rekk ci bis bi di wax ne alhamdulilah ala kulli xaal ginnaaw bi ñu yàlla subhanahu wa taala ah, warsagale ñu bokk groupe bi depuis ay at tey nag yàlla def ñu mën a tase fii ngir ñu xamante ndax nag al uxuwatu fi diin lañu wax mbokkoo ci ci diine te lii xam ngeen ne diine rek moo ko mën diine moom moo mën boole ay nit yoo xamante ne ku nekk tey jii ñi a ngi jóge fii ñi jóge fii ñi jóge fële yàlla def nag tey jii ñu bokk groupe bi bu yàgg ay at ñuy déggante Seyda Nogoy di dégg Seyda Fatima di dégg Seyda aleykum salaam di dégg te xëy na mosu ñoo gisee mais nak tay la yalla dogaloon ne tey la ñuy gisee léegi tamit ci lolu yalla mën na je ñu baña japp né ne suñu and bi ñu baña japp né ne dañ pour ay fo la rek li tax yalla def ko rek dara la ndax yalla lu mu def rek amna lu tax nek gisé yalla boole ñu nekk ay mbokk soxna yalla boole ñu nekk ci groupe bi bu ñu jàpp ne loolu kii la mën nañ cee dem a dem a dem te moom la ñu ñaan yàlla euh, ci àdduna fii ba yàlla defal na ci lu ci lu kawe suñu njort fële ñu jëm tamit yàlla boole ñu waat ci biir aljan aljanna ñun ñëpp te loolu la ñuy ñaan suñu borom yàlla nañu ko yàlla defal ndaxte nag dañuy ne euh, bu yowmal xëy ba bu bés ba jotee incha allah euh, dafay am ñoo xamante ne yo ànd yëpp dañuy tàggalikoo maanaam xarit yëpp dañuy ku nekk day dem waye ba mu dess ñi nga xamante ne dañoo ngir yalla rek kon yalla na def suñu and bi nek ngir jëmmam rek subhanahu wa taala yalla defal ñu ci barké groupe bi nak bo déggé turam rek manam firina bopam Guru groupe jonge mom, jonge day warna jigen, warna goor na comme ko am ñu fi jaar am luñ ci jot wax loolu rek day doy pour ñu baña guddal mais jonge lool dafa doon jaamu yalla ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa doon wax ne Euh, euh, maanaam jigéen ju baax mooy ki nga xamante ne boo ko xoolee rek bëgg te defe naa xool ko bëgg moom loolu jonge moo ko mën a kii mu mel noo xamante ne maanaam saa ko xoolee rek yow boo demee sax doo bëgg a yàgg fi nga nekk fi nga jëm bu nekkee ci yow tamit macha allah euh, doo bëgg a sorenteeg moom loolu yëpp jonge moo ko mën groupe bi man nag dama naan macha allah mu ngi liggéey ñuy ñaanal ki nga xamante ne moom moo ko xalaatoon Seyda Zahra yal na yàlla defal la yu bëri ak ñi fi nekk ñëpp. groupe bi jëriñ nañu bëri am na yu bëri yu mu defar tamit boo xoolee rek boo dégloo nit ñi rek di nga xam ne am na ñu mu defar li nga xamante ne tam moo moo tax ñiy jóge ku nekk jóge fi nga jóge ñëw fii kon xam nga ne groupe boobu jaral na waa am na moo xam ne groupe bu meloon noonu boo woowee niñu ñi du ñu sawar a ñëw kon groupe bi day yare day defar euh, te lii nag al ummu madrasa isa adattaha adatta saban tayibal axraq loolu la woykat bi waxoon yaay mu ne mooy école boko defare rek yow defal nga peuple bo xamanteni ma sha allah mun naa indi lu bari jigen mom moy garab bi nga xamanteni moy meñ ñooñu di ko ci mom nag mom mu len di yar di def ci ñom ay ma sha allah euh, jigen kon jigen, ku ko defar rek yow defal nga société kon groupe bi tamit day defal ay soxna amna ñu bari ño xamanteni fofu lañuy la mën na yor ben jiko ma dugg ci groupe bi rek ñu tek ko tem bobu ma deglu xamne ah kon man fi ma nek du fofu kon dama wara sama tank, xol fenen kon groupe bi day defar kon yal nañu yalla defal lu kawé suñu jor ci groupe bi ñu dem ba ñun ñi fi nekk ñepp di tudante ay dom di ndayalante def macha allah nako yal nako yalla def and bi tamit yalla defal ñu ci barke macha allah kon ñu len di gërëm di leen sant macha di gërëm tonton Serigne macha allah ci jéego yu reuy yalla yal na fay len jiw yalla defal len barké seen li ngeen liggéey ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله